lii duñ ñu gulet yàgg nga ko def drapeau chef d'état fu mu daan am rek da ngay bàyyi sa ay yitte mhm. ñëw fii tey nga ñëwaat région de Diourbel yëg-yëg bi lan la waaw da am mbégte rek da am contentement bu baax parce que Diourbel li may wax tout le temps rek sama doom day def fi nekk ku ma xam xam ne maa moom kenn lañ du ñaar muy la njang fii la dëkk fii la yaayam dëkk waaw famille nekk fi te famille ñu suma famille yaayam suma yaay la muy koo xam ne vraiment maa du ñu ñaar kenn lañ tey bu dëkkam xewle damay ñëw rax ci dolli Matar Ba bu ñu tuddee bis buy jiite sport bi nekk koo xam ne sportif dañoo gis seen bopp ci moom noonu ku bëgg sport ku sawar jël temps mu def ko ci sport bi kon tamit duñ def lu dul moom fu mu teew rek monsieur dafay teew. mu nekk sport bi nga xamante ni daan nga pratiquer euh, tey xale yi am sens fekkee drapeau chef de mu am si beneen anam bi nga xamante ni daaw ko woon am tey xale yooyu tey loolu leen di wax. waaw di wax ñu góorgóor rek parce que yu mel nii bëri ci da ciy baax. parce boo boo mënee géew gi géewu làmb du la du la sonal. parce que géew bi nii day nekk ak sa sa wet à zéro mètre. waaw te aussi vraiment nekk na loo xam ne xeetu bëri yëpp di ko xam parce que bëri xeetu bëri yëpp dafay nekk. voilà kon léegi boo ñëwee di nga bëreeg façon nit ku façon nit ku yor mënin bu ne. waaw bay tax tamit aussi xam-xam bu bu bu wóor nga yor. voilà kon maa ngi wax ñu ñu dugg ci tournoi bu ñu ko ragal. ñu ngi dégg sa combat yi ak Tapha Tine ñu koy dox foo leen fi ñu toll si affaire non non non non combat bi taxawagul mais nag bon lu jot yomb quoi. lu jot yomb combat bi. waaw non lu jot yomb rek ñu ngi waajal ñu si kawam ñu ngi pare ñu waaj. yàlla baax na cey lii ndeysaan day dem lii aada la ak cosaan waaw waaw nee naa la làmb jox moom kookoy Manga 2. waaw du ama seen ay noonu waaw waaw. Tony Junior nekk ci wet bi ndeysaan. rob la waaw